ba ñu xoolee lépp ba pare ñu dellusiwaat tey ci suba ñu wan nañ leen ko joxaat cour d'appel ne leen joxoon nañ leen ko démb saytu ngeen ko wax leen li ngeen doon su ngeen amee li ngeen ci wax wax leen ñu ko ñu tontu leen wala nañ leen tontu ba pare cour d'appel ne leen procès verbal yi ngeen di laaj d'abord yéen ñu laaj na ko jox nañ leen ko waaye yéen tamit am ngeen ko ñu ne est-ce que mën nañ ko photocopier ñu ne yoon ma ñu ñu mën ngeen photocopie waaw mën ngeen ko xool mën ngeen jël bu leen neex ngeen xool ci lu ngeen di xool lu ngeen am lu ngeen ci wax ngeen wax ko man damay jàpp ne tey li xew li xew lu xam ne day doon lu nga xam ne antidémocratique la. lan moo lu tax mu nekk antidémocratique maa ngi lay déglu ah da ngay laajte ma lay tontu rek xam nga lu antidémocratique mooy lu teguwul ci yoon lu anti antidémocratique mooy lu teguwul ci yoon loo xam ne bi ci yoon la tegu amul warante ni ci yoon la tegu yow mi ko laaj mënuloo wax ban yo ci fan nga ko nga ko teg. yoon tontu la ne fii laa ko teg nii lay demee loolu amul tontu jeex na nit nit ñu nangu li nga xam ne ne bi mooy am wa ilaa mënoo taxaw tey Sénégal dama koy wax dama bëgg ñëpp dégg ko yéen ko dégg bés bu yàlla sàkk tey jii ñu dégg ne journaliste yi defuñu yoon bés bu yàlla sàkk ñu dégg ñu ne société civile deful yoon bés bu yàlla sàkk ñu dégg ñu ne alkaati deful yoon bés bu yàlla sàkk

sëñ bi kan moo deful yoon ma dama léegi dama lay laaj danga ma laaj danga ma laaj léegi dama lay laaj yow it kan moo deful yoon ah, déedéet dama la ne damay li may wax wa ilaa danga ma wa ilaa da ngay journaliste nga laaj ma ma tontu la wa ilaa da ngay bokk ci da ngay bokk ci jongante bi wa ilaa dangay bokk ci jongante bi ñu daje ci terrain bi loo fii Sénégal Sénégal lu waay wax dinañu la tontu soo waxee dëgg ñu dëggal ko so waxee safane bo ñu weddi ko li wax lu leer la du man mako wax yeen yeenay journaliste yeen yeenay yéenay waxtaan ak nit ñi yéenay déglu nit ñi yeenay dégg nit ñi yeenay dégg ay nit ci champ politique bi ñu ne ñom li ñu bëgg rek moy dëgg tay Dakaaru dañu def élection ñu perte ko bokk ba benn bokk yaakaar perte ko am quatre vingt voix Yewwi Askan Wi am cent quatre voix ëppale ko téeméeri junni nit lañ ko jiito kenn waxul dara ñu dem Pikine ñu perte Pikine kenn waxul dara ñu dem Géejawaay ñu jël Géejawaay kenn waxul dara Tëngéej kenn waxul dara euh, euh, Kër Masaar kenn waxul dara Ndakaaru juróomi département la juróomi département bi yëpp opposition moo ko gagné kenn waxul dara nga dem région de Ziguinchor région de Ziguinchor ñetti département la Oussouye Bignona ak euh, Ziguinchor dañ ko perte opposition moo ko gagné kenn waxul dara nga dem Saraya dañ ko perte kenn waxul dara nga dem Thiès dañ ko perte kenn waxul dara nga dem Ndar dañ ko perte kenn waxul dara nga dem Mbacké dañ ko perte kenn waxul dara nga dem Tivaouane dañ ko perte kenn waxul dara kon lan moo waral loolu yëpp nga perte ko waxuñu dara ma gañee Podor ma gañee faneen nga ni man dama sàcc su dee na nga ne dama sàcc Sénégal la ñu nekk nañu nit ñi déglu te nit ñi wax soo ne dama jàpp dama sàcc da wax nan lañ la sàccee Sénégal élection tey bureau de vote yëpp bureau de vote boo dem n'importe quel bureau de vote il faut que le président juge la assesseur que sénat di fa parti bu candidat bu ci faire di représentant nit ku taxaw ñu ne mat nga li Nous doon ñu les la ne Nous nga saytu nga qui ba nga dañ ma té mëno wax nañ la dañ ma Sénégal daf ko wessu kenn ku ci ont li nga am moy li la sénégalais yi jox mom la la cour bi jox kenn ku ci nek la ngay yanu la nga am la nga am nag mooy li la sénégalais jox ngir la nañ ko nangu parce que tey jii damay wax ne nag ko sénégalais yëpp nangu système démocratique sénégalais def na ay jéego yoo xam ne ne bi daf Sénégal dafa bokk ci réew yu mag yi soo demee États-Unis démocrates yi ñoom ñoo jiitu républicains yi xam na ñaata leen jiitoo benn ni benn dé benn sénateur kese soo demee France amul majorité majorité relative moo fa am amul tul dañ ko wax dañ ko wax depuis démb ñu ne amul tul Sénégal kenn benn nit ak ku mënti doon ak foo mënti jóge ba xam yow képp ak sa parti rek mën nga dem élection nga gagné ku gagné élection Sénégal dafa am ñooy àndal tey jii coalition yi am na juróom-ñetti coalition ñoo dem sa élection coalition Aar Sénégal coalition euh, euh, Naataange Askan Wi coalition Bokk Gis-Gis coalition Aar. coalition Bernobok Yakar, coalition MPR les serviteurs coalition Bernobok Yakar, coalition Walu ak coalition Yewwi Askan Wi loolu moo fi am kenn ku ci nekk li nga am jox nañ la ko. maître ma bëggoon relancer rek juste représentativité de ci assemblée nationale Nous avons si 82 députés boo les Walu ak euh, ñi nga xamante ni ñoo di Yewwi Askan Wi ñu avons si 80 ndax ragalu leen mu jural leen ak jafe. ah déedéet damay bëgg ñu lan parce que dafa am coalition bu tudd wàllu mu am coalition bu tudd yeewi askan wi su dee ñoom mën nañu ànd yeneen coalition yi aussi mën nañu ànd xawma lu tax nga ni ñoom dañuy ànd kan moo la wax ñi ci des ñi kan la ñuy àndal xamoo ko xaw ma ko kenn ku ci nekk ba ñu taxanee la nga am nga indi wallu dafa am li mu am yeewi askan wi am lu mu am euh, euh, bokk gis-gis am lu mu am MPR am lu mu am bokk yaakaar am lu ñu am suñ suñ suñu àggee ba ca cëppaandaw ga dinañoo xam ku ànd kenn ak ku àndul